saxaaba al kiram dalal nañu leen ci bismillah ahlan wa sahlan marhaban al kiram dalal nañu leen ci bismillah ahlan wa sahlan marhaban akiran dalal nañu leen ci bismillah ahlan wa sahlan marhaban akiran dalal nañu leen ci bismillah الله na yàlla barkeel koom it ku ne xam na ne moom ay moroomam seen fukki weer ñaar sànni ko ca àll ba bismillahi rahmani rahim hal ataaka hadithu lghashiya wujuhu yawma idhin qasi'a aamilatun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

تعلمون ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا فخلقناكم أزواجا فجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا miqaata takbir bismillahi rahmani rahim وجعلناه سميعا بصيرا إن وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا macha allah njàng mi am na solo lool. jox nañu ci mbaaxam def nañu ñuy ñaan Qur'an sant yàlla war nañu la fa gën jox nañu ci mbaaxam sant yàlla war nañu laafaagal jox nañu ci mbaaxam def nañu ñuy ñañ Qur'aan. sant yàlla war nañu laafaagal jox nañu ci Qur'aan. sant yàlla war nañu laafaagal jox nañu ci mbaaxam def nañu. ñuy ñooñ Qur'aan sant macha allah takbir mbokk yi ñu ngi ñaan yéen ñi yéen ñëpp ñu ngi màggal ñi nga xam ne ñoo mokkal alxuraan yi waa jëm yéen sama bàyyi ñu ngi ñaan ngeen ñu màggal leen yéen sama yaay ngeen ñaan ñu ngi ñaan ngeen jóg màggal leen ñi nga xam ne ñoom moom Fallou ci biir. Magal jox nañu ci nañu ñuy ñaan sant Yàlla wax nañu la magal jox nañu ci mbaaxam ñaareel yàgg naa di ko jéem may di def القرآن واتلنا تيرين يدنا بكريم مجد دفمايم إسكي قرآن تيرين يدنا بكريم مجد دفمايم إسكي قرآن

بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذه موهبا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما jërëjëf sëriñ Baye Saliou Seck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 عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وإن كان لكم كيد فكيدون صدق الله العظيم تكبير تكبير بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أساءوا wa kaanu biya yastahzi'uun allahu yabda'u alxalqa summa yu'iiduhu summa ilayhi turja'uun wa yawma taquumu as-saa'atu yublisu al-mujrimuun wa lam yakun lahum شركائهم شفعاء وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقائنا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ginnaaw aaudu billahi min alcheytan alrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab aaudu billahi min alcheytan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل ولم يجعل له عوجا خيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا تؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولو إلا من قطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهموا أو أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم mel kan moo koy dox jaxaara gën baara kan bu dee wajur bi ñu jigéen bi wajur xaaral ñaari kon moom lay jox Ibrahima فيما كنتم فيه تختلفون ما شاء الله حسبك تكبير يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم قاتلوا الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما يبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا نظر وبعضهم إلى بعض هل يريكم هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأن قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تكبير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 إنما عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم وأعد أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا sadaqallaahul aziim. waaw kay jërëjëf Serigne Cheikh Taïba Seck. سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp bokki jullit yi yëpp ñu ngi leen di nuy bokk dëkkandoo yi ak am di jàmm yi ak xarit yi ci turu sunu kilifa yi fi nekk di leen dalal jàmm di leen wax massa coono waaye muy coono boo am njariñ ndax alxuraan a ko tax a jóg kon ñu ngi dalal ñëpp di ñaan yàlla lépp lu ci aw yiw yàlla na ko yàlla buur bi fulal te boole ko kàddu yi xam naa du gudd kàddu cant rek lay doon ginnaaw bi ñu santee yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ni moo ñu bind te jagleel nu xusoosiya bii nga xam ni mooy alquran ci dëkk bi ak mboolem jullit yi ñuy sant sunu kilifa yi ginnaaw bu ñaanalee mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo sañtan dëkk bi yal na yàlla yokk seeni leer te taas ci seen barke liggéey nañ fi liggéey bu am solo ndax moo waral lii mën a am ñi ngi sant sëriñ ak mboolem ñi àndal liggéey bi muy sëñ Talla ak sëñ Fallou Seck ak mboolem ñi ko àndal ñépp ci taxawaay bu rafet bii nga xam ni taxaw nañ ko ndax daara ji dafa mel ni mën wu fi woon ñàkk ta mënuñu ko won kon nag bu amee kenn ci nun koo xam ne yàlla defal na ko tawféex ba mën a samp lu mel nii loola dañ koy ñaanal yàlla guddal aw fanam wéral aw yaramam ak mboolem kum ko àndal ak ku ci jàpp ak ku ci am yéene yépp euh, dëkk bi nag sant nañ bu baax ndax li fi mokkale ci aw nit kenn xamut nu mu ci daara ji kon nun mënuñoo fay daara ji mënuñoo fay ki ko fi def ak ñi ciy jàngale ak ñi ciy jàpp ñi ngi sant jàngalekat yi bu baaxet ci seenu taxawaay taxawaay bi rafet na lool seen pasteef xam naa loolu sëñ Fallou Seck dana ci ñëw di sant suñ kilifa yi fi teewit muy bàyyi sëñ tay ba ci turu Baye ñaxal ak mboolem bokk yi ñu àndal yépp ñi ngi sant it ah, parents d'élèves yi ci njiital sëñ baarakan ak mboolem ñañ ko àndal waaye di sant ndeyi daara yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant seenub taxawaay daana rafet waaye ren nag da cee raw ren moom da cee raw kon ñu ngi leen di sant ci seenub taxawaay ci bis bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seenub taxawaay yàlla yàlla na nu wale nu taxawu ba yéene yi nga xam ni sunu kilifa yi am nañ ko ñu ànd ko ak ñoom ba am ci lu kawe suñ njort yàlla mën na ko yàlla na ko def yàlla na yàlla guddal fan yi te wéral yaram yi barkeb seexul xadim jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah